écran bi comme ça très rapidement nga commenté ko. waaw. Mhm. kii sama la. Mhm. cette famille là c'est ma famille. merci mhm. de te lu ma xew rek ñoom lañ ko yëg. Ah, waaw. beneen photo. Mm-hmm. yal na yàlla ñu tas barkeem. Mm-hmm. <laughs> dégg naa da nga ko bëgg. kañ waaw waaw chaque les musulmans ne labe ana suma ngalax bi ma ne koo xaar moom ngay ñëw li <laughs> bu am koko wala bu am raisin. kay day am yëpp wala nature bi la nga bëgg. Ah. nature bi rek wala ah, ñoom kañ moo ko pare ba ma yóbbal ma ko tuy. tuy nga koy def ñoo xoolaat beneen photo. <laughs> ah mhm. ca Cardinal Thiandoum. Cardinal Thiandoum ku gëmoon yàlla. Mhm. Oh, oh, oh, ku gëmoon yàlla. Mhm. noonu lañ ko bëggee waaw. il avait la foi il avait la foi il avait la foi. de tous et par tous. ñu xoolal beneen photo. Valérie. Mm-hmm. quand le pape le pape euh, comment Benoît. sëñ ma sëñ Mamour Mbacké ba mu demee Vatican. c'est bien. xalifa sëñ Mourtada waaw il est reçu par le pape c'est bien. macha allah. nii lañu bëgg adduna si bu ñu ko kenn yëxal mm-hmm. Jean Paul II <laughs> suñu woy bi mm-hmm. bienvenue Pape Jean Paul II ñun woy moom woyal moom ñëwee ñun ñoo ko dalal bienvenue Pape Jean Paul II dans ce beau pays le Sénégal kontaan naa waaw comme fekkee nga ko rek du ma waxati nous te recevons dans la joie alhamdulilah nee na ko depuis longtemps nous t'attendons ndeysaan <laughs> <laughs> yéen a alhamdulilah ayca dernière photo ah Kouthia. waaw. ki nag moom sa xarit la sa xarit la Kouthia. Kouthia Kouthia la waaw. Uh-huh. yàgg na la trop wa moom kañ. Uh-huh. ma ma ma ma li fi nam di. voilà <laughs> muy kontaan bu ñuy wax waxu Abbé rek mu ne Abbé Jacques Seck. waaw waaw macha allah macha allah donc mu nekkoon album photo bu ñu la indil loo